asalaamaaleykum mbokk téléspectateur 28 Pro TV ginnaaw bi ñu leen nuyu ziar leen di amaat contentement di jàkkaarloo ak yéen seen internet bi bu mag bi di ñaanal sëriñ Mountakha xalif général des Mourides mu yàgg fi loolu te ak wér. ngi nuyu bokk yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan di yëkkati suñu kàddu ci ndigalul Serigne bi muy bis bi nga xam ne moom la ñuy taxawee muy màggalu Daaru Salaam mu doon bis boo xam ne waa juróom wa da ko daan taxawee. ci kër maam Cheikh Anta màggal gi nag doon màggal goo xam ne li sabab màggal gi muy tukkib Serigne Touba boo xam ne màggal gi mbégug mbégug lépp la ndax dañuy faral di wax ne màggal gi mooy indépendance su yoonu murit ndax euh, la sëriñ maam Cheikh Anta waxoon daf ne su màggalee demam nga ngir naqar wa ma màggal ñibbiseem nga ngir mbégam ma la sabab sa màggal baatinub demam ba moo war a màggal saa yi su ñibbiseem nga ndax Sëñ Tuubaa bi mu ñëwee dafa ne lil Mustafa nawaytu maa yu jaddidu sunnatu wal ara wa indi ah maa ñëw ngir ak dekkal sunna Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fenn mu fekkoon na lislaam yi fay ci sowu jant fépp mu daal di am pas-pas bi yeesataat lislaam ba mu ko yeesale ba suñu borom gërëm ko nag ñibbisi gim ñibbisi tawfeex gën ci amaat ba Sëriñ Tuubaa di ñibbi si la mu wax mooy ijhal rujuhi ila xawmi sahaadatana wal takfina yawma jamhu xaqu niirana na ko suñ borom nag ma defal ñibbi si gi nga xam ne moom laa ñibbi mu nekk yëpp te nga fegal leen ci sawara defal leen ci àjjana ba faaw waaye bi mu ñibbisee it kenn ku nekk xam na ne euh, la mu bëggoon kenn ku nekk la nga bëggoon ci bokk yi ndax juróom-ñetti at ak juróom-ñetti weer mm, metti na te la ko sababoon mooy yeesal gi muy yeesal lislaam waaye ba mu ko yeesalee ba lislaam bëgg ba lislaam sëgëriw ba Sénégal gépp foo dem fekk fa taali alxuraan yi foo dem fekk fa liggéey Serigne Touba mu samp mag ñi samp seex ñi liggéey boobu ba ko suñu borom gërëmee daf ne dama ko sotti fenn furut Daaru Salaam. ba nga xamee ne wàcc na 1902 ci bato bi ñu taalal ko fukki kënu ak ñaar ñëpp taxaw di xaar naan Serigne bi ñëw na wala ab néew lañ indi ba ñu toogee maanaam 9h ba 4 benn tool moo génn daan na uwee laa Seex Anta ñu Seex Anta daal di jóg taxaw. ci daraja bi ko yàlla joxoon ak taar ba ñëpp jóg taxaw mu ne ko ñëwal wuyu Serigne Touba ba mu duggee fekk Serigne bi ci melokaan wu yéeme nga ndax juróom-ñetti at mu nekk ko gamoo taw bi di taw ci kawam naaj bi di naaj ci kawam muy tagg yonent bi di tagg suñ borom ndax daf ne salaatu sitta bi mat i sitta taadi i sitta maa ci saay juróom benn weer yi da koy tagg suñ borom sol suñ borom subhanahu wa taala juróom benn weer ci des mu koy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi amoon mënut woon a wàcc mbooloo mi di ko gis Serigne Gaawaan waajal ko dagg weeyi wat ko daal di koy daal di koy woo maam Cheikh Rame Fall maam Cheikh Rame Fall boot ko mu daal di wàcc. ba mu wàccee kenn ku nekk bëggoon ngaa dalal Serigne bi bëggoon nga koo bégal ngir namu goo xam ne namm nga ko waaye Serigne Touba du def lenn loo xam ne loola juyoo na ak ndigal suñu borom subhanahu wa taala ci la ne bàyyi leen ma nag ba sama borom xam fan la may dalal ci la ubbee kaamil alxuraan yem ci wallaahu yadduhu ila daari salaam way hedi isaar ila mustaqima mu leen sama borom xamal na ma ne buntub daaru salaam laay wàcc daa ne ko nag Cheikh Anta jiituma salaam foo ma dégg rek xamal ne dama faa jaar waaye yaa ma yëkkati maam Cheikh Anta daal di ñibbi si daaru salaam daa ne képp koo xam ne amee lool nga ma bor na nga ma fay bépp compte banque mu amoon mu dem jël ko ubbi ko wii de xaalis ba yëpp ñëw daaru salaam ba Mbàkke mu lal ko ay séri rabal yeesalaat dëkk bi ngir xam ne mbig mi lislaam am ak daraja ji lislaam am Serigne tubaa di ko sigariwoo loola Serigne tubaa du ko yabbi fenn fudul daaru salaam loo tax suñ Moussa Ka daan ne yan bañ ko yenoon Congo ki Conakry daaru salaam la ko yennee ko ila Manakiri bis boobu nag moo dellusiwaat tey ñu koy màggal fii ci kër Cheikh Massamba Dieye Cheikh Massamba Dieye nag doonoon koo xam kenn la ci maam Cheikh ndax la ko la ko booleek maam Cheikh Anta mu doon loo xam ne ak gàddaayam la woon bàyyi bokkam bàyyi cir àdduna boo xam ne moom lañ ko doon takkal muy ndomba tànk mu jaayante fekk Serigne Touba ci yéen jolof ne ko aslamtu si sëriñ bi ne ko looj sàkko mu ne ko texe ci àdduna ak ci alaaxira mu ne ko nangu nañ la ko mu fanaan loo ko mu xëy sëñ gaawaan yi sëñ gaawaan nuyoo si mu ne ko li nga doon sàkku si fii defal nañ la ko foofu bu la gërëmee gërëm naa la Cheikh Massamba bàyyi ko fa ànd ak Serigne Gaawaan ñëw Daaru Salaam mu tarbiyee fa ñetti at Serigne Gaawaan wàcc ko defar ko tofal ko mbooloo na ko demal bawal di leen defar di leen tarbiyee di leen tarxee ku faatu ngeen di Daaru Salaam ma tabal àjjana kon nag Serigne bi ndigal loola waa juróomi nekkoon di màggal loola lay màggal ba léegi boog bokkam yëpp ak bokki taalibe yëpp ñu koy fas yéene ko màggal fii ni ñu koy màggale nag mooy jàng alxuraan jàng xasida ak benn ndax bis bi kenn ku ne xam ne la ci maam Cheikh Anta defoon daana nganuk Serigne Touba semaine la woon bis bu nekk daana rey fukki fukki xar ak ñaar fukki nag ak ñaar lu dagan lu nekk mu reje fukk ak ñaar ba amatul rey mu tëdd nit bëgg koo rende Sëriñ Tuubaa yónnee ci moom mu goreel ko kon nag loola rek ak barke booba ci la ñuy taasu di ko màggale fii ci kër Serigne Dame Dieye di ñaan suñ borom yàggal ko fi yàggal fi njaboot gi yëpp ñu ngi jégg lu baax ci kaddu yi li ci dëng ci ñun la waaye lu ci jub li nekk Serigne bi jubal na ko ba mu mat doomu aadama nag moo matul wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu kon bu ko defee ñu tàllal rek Serigne bi teewaayu man tonton Libaas ak ñu àndal la ak kon bu yaatu ci maam Cheikh Anta Mbacke borom gaawaan xamuñu mooy kan mënuñu wax mooy kan waaye dañuy sàcc as lëf ci moom rek wax tuuti kan mooy maam Cheikh Anta ndaxte soxna Zeyna il faut ñu ñuy xam ne artiste comédien am nañ culture général dañoo jàng xam xam baax li ñuy wax lan la donc euh, bu ñu gis ni tonton Libaas artiste la bu def théâtre dem am na culture générale jàng na xam na donc euh, ñu war a waxtaan li gaawaan tey maam Cheikh Anta Mbacke mooy kan dañuy jàng ci moom ndaxte dama naan fii ñu toog tey Zeyna muy Daaru dëkk bi la Sëñ Tuubaa njëkk a sanc moom daa nekk mu ne ko Mbacke juróom juróom ñeent fukki ndongo ak juróom ak juróom-ñeent maanaam bi nga ko xaymaa 99 ndongo sëñ Tuubaa ne ko maam boo ci yokk boo ci dollee ko xanaa muy ñaar fukk mu ko waaw xanaa muy mu ne ko waa mu ko rafaatal naa la Daaru Salaam ñaata ndongo fi nekk mu am na 99 taalibe bi fi nekk mu ne ko maam Cheikh Anta boo ci yokkoo xanaa muy 100 mu ne ko waa mu ne ko rafaatal naa la du saayir maam Cheikh Anta sa maam soxna Faat Mbàkke du saayir maam Cheikh Anta Mbàkke la si la Sëñ Tuubaa njëkk a seexal ci Mbàkke Mbàkke soxna Zeyna dëkk bi mu njëkk a sanc Daaru Salaam la maam Cheikh Anta la ko njëkk may bu mu ko may fukki at ak juróom-ñett la kon ñun nañu jàng nañu jàng ci moom nañu nañu nañu nañu nañu xam ku am fukki at ak juróom xool tey man dama dem ba am fanweeri at soxna Zeyna nekk sama biir kër waajur aw ma benn responsabilité kon maam Cheikh Anta li ñuy jàng ci moom bari na ñu koy dàqatalee borom dërëm ak ngërëm barki Dembo Ndiaye Mbacke ngeen jël 150 million jox ko Cheikh Sidil Moukhtar jox ko ne ko taal ko beneen jàngale ci wàllu koom-koom tey bu ñu doon natt tey maam Cheikh Anta ci ci jamono Cheikh Amar lañ koy takkale ci milliardaire wala mu ëppale ko xaalis ci boppu jamono. moo jël lépp ak li mu amoon jox ko Serigne Touba toog yéene Serigne Touba ci aji màkk gi moo ko mottali moo ko Alaaji Fàllu Mbàkke moom maam Cheikh Anta Mbàkke bare na lu maam Cheikh Anta lu ñu war a jàngee ci moom keroog bi Serigne Touba jógee géej kan la woo maam Cheikh Anta waxtaan ak moom ci biir bato bi. bi mu ñëwee tëpp na wala maam Cheikh Anta da moom parce que ni naan sëñ bi ku tedd ki ñëw nag ñëwul tubaab bi génn uwe maam Cheikh mu yëkkati loo ko répond ci doo xam ne ku tedd ki mi ngi fi mu dugg mu dem moom waxtaana mu ay kàddu bokk na si mu ko dénk mooy dem naa ba ñëw liggéey naa ba ñëw wàcc naa wàccaale naa leen wàccaale naa képp ku ma yaakaar kon Mbacke Balla soxna Zeyna jot bi ma teewu ko ba mu ñëwee ba léegi toogul toogul taxawul nekk si lu ñu neex te na a fekk moom moom soxna Faati Mbàkke mi nga xam ni euh, Lamzo nee na ma gërëmal ma ko bala sam ne na gërëmal ma ko na gërëmal ma ko soxna Zena jërë jëf maa ngi nuyu baax a baax a baax kullu kuy setaan 28 euh, pro maa leen nuyu di jàmm di ko sàkk yéen di leen daje ci leen i événement ci leen i ngeen jëf euh, soxna Zeyna mi ngi noonu waxtaan bi am na solo yaatu na bu ma sante soxna Fatim Mbàkke damay daal di sant bu baax a baax a baax kilifa ga boroom kër ga sëriñ Daam Mbàkke sëriñ Sam Mbàkke sëñ Xaadim Mbàkke sëñ aswal yu maa ngi nuyu baax di leen siyaar di wax ni kontaan nañu ci dalal bi nga ñu dalal Mbàkke Balla sa maam daan wax ju am solo bu sëñ Tuubaa waxoon waaye balaa ma koy wax damay gërëm borom kër gi sëñ Amet Amet moom nga xam te ni sëriñ Sidi Mbàkke mooy sëriñam moom mi dëkk Daaru Salaam dalal ñu kër ci kër gi moom dafa tabaarakallaahu yaatal lépp lépp lépp lépp lépp mbaa soxna Faati Mbàkke sëñ Tuubaa dafa daaru yëpp baax daaru Karim am na daaru Rahmaan am na daaru Muxti am na daaru Mannaan am na sëñ Tuubaa ne daaru yëpp baax waaye salaam da cee gën daaru salaam da cee gën soxna Faat Mbàkke kontaan nañu yow boo retaanee ku sin see bañ a aram safara retaanal <laughs> jërëjëf soxna Zeyna am na solo kontaan nañu baax a baax a baax a baax a baax بالتسبيح Iba wal الأوفى